ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare ziyaare bu wér ndax amuñu lu lu dul daaru salaam ndax daaru salaam gii tey mboolem lu ñu am ñoo ngi tëdd fii ci daaru salaam sunu yaayee ngi fi sunu baayee ngi fi kon ñun fii rek moom lañu am kon fii tey jii luñ fi ànd rek xem nañ ko lu ñu def fii rek looloo ñu war ñi ñu àndal nag ah ñi ngi àndal soxna Ndey Diop moom lañu àndal muy sunu mag di taalibe ci ci kër gi di dong ci kër gi di lépp ci kër gi daal ñu dénk ko suñ sëriñ bu baax bi di sëñ Modou Rokhaya xaw ma di sëñ Seex te amuñu lu dul moom fi ñu toll nii sëñ Seex mooy sunu kanam mooy sunu ginnaaw ci satunu suñu waajur yi tey ji moom lañu gis mooy sunu lépp suñ la ko waxee yaay sunu lépp buñ la ko waxul it yaay sunu lépp te xamal ni Mbàkke yaay sunu lépp njaboot gi tënk nañu ñëpp def benn buum suñu waajur yi nan takkoo woon ci sag ginnaaw ca sëñ Modou Rokhaya ba nëga ni lañu la ñu booloo ñu ni takku def benn say takku ci sa ginnaaw Mbàkke loo bëgg rek lañuy dox loo ñu yaakaare rek wooñu fii tey jii luñ fi def rek xeeb nañ ko ndax tey jii luñ fi def du hasard xajjoo ba ngi fii tëdd suñu bàyyi du Khoudia ngi fii tëdd kon tey fii lu ñu fi def rek du hasard kontaan nañu suñu xol sedd na ànd na ak suñuy dëkkandoo Touba ñëw sama raq ngi nii du Njóoba Jóob dama juum sax suñu xalifaa ngi nii di Modou Rokhaya Jóob ambe Jóoba ngi nii toog macha allah seen taxawaay rafet na di profité di gërëmaare sama raq ja ca Italie ja ca Espagne sëñ bi di la ko gën a dénk bu baax muy xaadim Jóob xaadim lu mu joxe ni ma joxewaalee sama yaay ak sama papa ci àddiya yi billaahi walaax taaj kenn ënnu ko ci ndax nee na fekkewuñu daraam bi muy mën fekkewuñu daraam kon tam moom tey lu muy joxe da ko ci sooraale yaayam ak papaam loolu la def Mbàkke ñoo ngi la koy gën a dénku ñi ngi dénku njaboot gi yëpp waaye rawatina xaalim jóob waaw ah soxna njóobaa ngi it njóoba jóomu sàll mi ngi nii waa Tuubaa ngi nii ay dëkkandoo njóoba soxna ameta ngi nii di xaaj jóob waaw ñoom Kodou Gueye ak ñoom maam Diarra Diop Khady Diop Cissé ñoom ñëpp ngi nii daal macha allah daal waaye daal xamal ni yaay suñu yaakaari àdduna suñu yaakaari àllaaxira ñoo ngi nii Mbacke waaw waaw Asta Asta fàttoon naa doomu Diop xaw taawu Ndey Diop waaw wax naa ko muy taawu Ndey Diop soxna Asta ngi nii di taawu Ndey Diop waaw di ko ñaanal nag nga ñaanal ko borom kër bu baax a baax waaw di ko ñaanal borom kër bu baax a baax. sëriñ bi nee mu ngi leen di nuyu. nee na di leen xamal rekk ne digganteem ak yéen we weesu na sax taalibe ak sëriñ ndax sëriñ Modou Rokhaya yoon yi mu daan dem ndakaaru yu ci bari kër Abdou Khoudia daan dal seen waajur nee na loolu yàgg na lool nee na moom mii yoon wi mu njëkk ñëw ndakaaru sëñ Modou Rokhaya daa bind ci loxoom bindal ko tegtal ko fa muy jaar ba dem kër Abdou Diop wax ko na ko boo demee nanga fa wàcc nee na mu wàcc kër sëñ Abdou mel na ku fa dëkk booba ñe yéen ñii ñëpp la ci yàlla xam daal doy na boobu ñu bari ñëwaguñ. Mhm. benn booba benn néeg rek la am. ak benn saal. sëriñ bi di fanaan ci saal bi. sëñ di fanaan ci néeg bi. ak soxna Fat Diop. booba sëñ Abdou daraan fanaanee liggéey. li ci ëpp. guddi lay liggéey. ku yàgg a doon ku yàgg a baax nag. doon ku yàgg a silwise. ndax sëriñ Saliou Mbacke. moom sëñ Fallou. ku ko xam. xam na ku silwise la woon. waaye moo ne sëñ Abdou nekkoon xaritam. ñooñee la daan àndal. ca jamono yooyee. su way juram ñëwee. maam Modou Fati. bu ñëwee. day woo Serigne Cheikh. ñu ànd. am na ci am na ci ak njabootam. ñu nekkoon ca Tëngéej. ca wetu ba ñu ànd. dugg ci car rapide yi. wàcc foofa. dox di seetu ñooña. nee na loolu yàgg na lool. seen waajur. Fat jóob doon ku jàmbaare xam na li mu liggéey ci kër sëñ Abdou Diop lu ci baree baree bari ci kanamam la moom mii sëriñ Seex nga xam ne daawul nopp lu guddi daawul nopp lu bëccëg mooy boole liggéey bi ak toppatoo xale yi ak yeneen ak yeneen kon nag mënu leen a ñàkk am barke. faw ngeen am barke. seen baay liggéey na ko. seen yaay it liggéey na ko. seen waajur. su ma saa ñëw fii màggal. ca fa ñuy jàngalee fanaan wallaay. fa ñuy fanaan. lu wax rek. mu yooxu. wala mu yëkkati addiye joxe. kooku nag. mënut jur ay murid yu yaafus. ak ngone daal mën naa am. waaye bu ngeen demee ba ca kanam. kenn du leen pësteef kenn du leen man ci yoonu itam. sëñ moodu daanaka. su ma gënee jàll. moom sëñ Modou dana gën a xaalu xaalu na xaat waaye nag seen waajur daal lii rek laa xamoon ci moom muy soxna Fat Diop di koo xam ni ak taalibeem amul fu mu yem ak taalibeem daal moom amut fu mu yem bi fi sëñ Modou Rokhaya nekkee bu ñëwee màggal si bu tukkee ba ñëw dem Amérique walla mu dem feneen bu ñëwee ci ginnaaw piliyaan bi lay toog ci wetu sëñ Modou Rokhaya du dem fenn kon nag soxna si def nga fi ay teraanga yu baree baree bari màggal gu nekk ànd nga ak sa mbokk yi ñëw def ko ay teraanga ca du ko ci sas dara yàlla xam na loolu. loolu nag moo xam li tax nga di ko def. kon sunu borom mi tax nga di ko def. ak Serigne Touba. na leen fay lu kawe seen jort.